السلام عليكم ورحمة الله بوكي يوم لأني دلن زيار حق وحق دلن بال نيان برمي سبحانه وتعالى مقول نجغل نيوتي مسألة رقم سبعة وثلاثون نيجانغ يتدي التيمم ويتيم تملكة شروط الصحة أك شروط الوجوب من شروط صحة التيمم هي نفس شروط صحة الوضوء وهي الإسلام وعدم الحائل وشروط وجوب التيمم شروط آه، وجوب التيمم آه، هي نفس شروط الوجوب في الوضوء إلا أن شرط دخول الوقت يصبح في التيمم من شروط الوجوب والصحة معا فتكون شروط وجوب التيمم البلوغ والقدرة وحصول ناقض الله أعلى وأعلم بالصواب يوتي مسألة مندرجة جروم نار فوك أغنيت سوسانتريز نيميرو سوسانتريز يجانج تيم من شرط يتخ تيم وير موي شا موي يتخ جاب وير lay tax njàpp wér mooy mooy li tax tiim wér muy doon jullit ku dul njàpp waru ko ku dul jullit tiim waru ko te sa loxo ak sa yaram dara du dox seen diggante xam nga booy jàpp ndox mi da ngay jël sotti amul sol gan di sotti di ñaar der ak der lay doon tiim tamit noonu la bu dee yi tax mu war bokk na ci doon muskallaf ku dul muskallaf njàpp waru ko mën naa jàpp nag pour mën jàpp ak yooyu waaye farat si moom noonu tamit tiim noonu la mel ak am kattanu tiim mooy feebarul feebar boo xam ni daf koy manul tiim ca la bokk ak njàpp toj wala tiim bu yàqu bokk na ci liy tax tiim warla la bu sa njàpp tojul tiim waru la bu dee tiim te waxtu wa jeexagul it tiim wa ñu jàngaloo mooy fiqh ibadat yàlla mo way ci kawe ta xam lépp lu jub rew bu ñoon tank tënk dars bi rek dafa am charte yo xani moy tax mu wér am charte yu tax mu war ci moom tiim comme niñ ko wax sank doon julit te li ngay massa dara du dox sa digënté sa loxo ak sa yaram yooyu moy tax mu wér yi tax mu war mo moy Eh, bokk na ci eh, maanaam boo tiime tey tisbaar takkusaan bu jotee tiimu tisbaar ba day yàqu maanaam takkusaan tiim da lay waraat beneen tiim kooku njàpp nag amul lool foofu wuute la loolu bokk na ci li tax mu mu war bokk na ci it nga doon muskallaf tiim dool la war bokk na ci nga am kattanu tiim mooy mooy wéréduwo wéréduwu lay tere tiim bokk na ci it nga tojle loolu mooy suñu darsu tey yàlla defal dégg ak topp ku ci am lu muy laaj wala lu muy leer lu mën na ko tàpp ci Ahmadiyya TV wala Aynu Mahdi TV buñ ko xamee dinañ ko tontu ci kàttanu yàlla subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa